leen sant di leen gërëm di leen baalu àq di leen baalu àq yàlla yàlla may ñu fekke ak tal bi bi ni déwén mu gën a avancé incha allahu taala yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ne sa tur ak sa sant ñoo ngi jiital ci nuyoo bi sunu mag ji toog di Cheikh Sow mooy sunu mag ci boor yëpp nag ñoo ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko nuyu bu baax a baax ñoo ngi nuyu El Hadj mi nga xamante ne si moom la ñu bés bi tey jii di nuyu délégation bi nga xamante ne si moom moo ànd ak moom yëpp ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp dama nekk ci biir délégation boobu waaw di wax ne rek tey xale yu yi li ñu def dañoo def initiative bu rafet boo xamante ne si xamuñu sax dayo bi ni mu tollu ndax bu ñu organiser lu mel nii muy loo xamante ne si foola ci seen biir waaye mu doon bés boo xamante ne si dañ ko respecté am fuñ ko teg ñu jël ko tudde ko koo xamante ne si nag ku ko jara tuddee la ndax El Hadj moom ku ko wax rek moom présenté na boppam ci lépp nag ci dëkk bi ndax lépp loo xamante ne si dëkk bi da koy yëngu muy développement alaaj Issa loxoom mu ngi ci biir kon nag xale yi tey jii buñ demee ba xool loolu gis moom taxawaayam ci biir dëkk bi ñu jël lu mel ne bés bi ñu darajaaleel ko ko dafa mel ni ñun ñëpp nañ ko dara jaaleel ndax alaaji Issa tax ñu waxee alaaji Issa ñun ñooy ay àndandoom ñun ñooy ay euh, ñu nga xam moom la bokkal maas kon nag tey jii buñ ko jaaleel bés bi sunu bés la ñun ñëpp lañ ko darajaaleel am nañ ci mbégte ak kontaante bu baax a baax di wax ne nag comme li grand bi wax sànq presque mën laa ne bu ñu yemoon foofu rek tënk na kàddu yëpp li mu la wax kàddu yu am solo la la wax. ndax nit nit ñi bari nañu lool waaye ku leen defalul dara duñ la defal dara a ah, li nga def nag ba ñu defal la dara xam nga ko dama lay wax fi nga teg sa tànk teg fa sa tànk bu ko teggi gën koo yokk nga xam ne nit ñi gis nañ li ngay def. li ngay contribuer ci dëkk bi nit ñi gis nañ ko ba tax lu ñu jóg ñu ne Alaaji Issa kon nag am na loo xamante ne si yaa ngi koy def dama lay wax ne lancé boobu bu ko bàyyi gën cee góor góorlu gën cee joggi sa tànk ndax liggéey rek moom mooy fay te li ngay liggéey moom ngay fayeeku instant yi nii kon nag ñoo ngi lay ñaanal yàlla ambition yi nga am ci dëkk bi ak ambition yi nga am ci commune bi wala ci lépp loo xamante ne si yaa ngi koy yëngatu yàlla la ko yàlla yombalal oyofalal la ko jotalal la ko ba nga xamanteni ne si dara du ci jafé ma ngi wacc sama kaddu di rafetlu bu baakha baakha baakha baax bes bi ni mu démé ni ñu koy rafetlu bu baakha baax di ci am contenté bu baax nak ci teew bi merci beaucoup Salah. bokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu assistance bi nga xamanteni ñom ñoo teew fi di gunge ci ki nga xamanteni ci mom moy isa Issa Sow bon eh, Salah soo ma joxee parole. xam naa fi nga ko teg yow mi ma ko jox tamit xam nga fi nga ko teg parce que jëmm ji nga xamante ne tey moom lañ paranel man ak moom yàppaada midi à 14 heures benn lañ kon tey buñ ko joxee lii mel na ni man lañ ko jox ñu koy rafetlu bu baax a baax di ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñoo am xalaat bi muy première édition bi yàlla ne ko yàlla bàyyeel ba ñu koy def saa su ne di ko tuddee ki nga xamante ne si moom mooy Issa Sow ndaxte Issa ndaw la nekk ci dëkk bi di góor góorlu comme li ñëpp wax rek li nga def xam nga ko ba waral tey ñu lay pareneel di gën a fësal sa tur si dëkk bi kon loolu yow la ñuy wax rek comme li ñuy wax rek kenn du la conseiller li ngay def wala ne xam nga li ngay def te xam nga fi ngay teg sa tànk li la war moom mooy nga gën a yokk góorgóorlu rek ndax xam naa ne moom doo yaafus ndaanaan nga te fi ngay teg sa tànk foofu la gën a la wane rek li nga xamante ne si moom mooy discipline bu baax a baax si askanu Karabou Ndoye ndaxte am na loo xamante ni tey yàlla du ko du ko du ko du ko feeñal si âge bi nga yor mais tey boo yore âge bi nga yor am matar ba bu yàlla di wane si yow moom mooy li la war rek moom mooy nga gën a am courage gën a jàpp gën a ñeme te nga xam ni yoon wi kenn moomu ko

te di leen ko baal gaay ak dégloo ak dégloo salaamaaleykum waa waa Bercy salaamaaleykum waa Kër ab Ndoye ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan yal na yàlla boole jëggal ñun ñëpp di nuyu suñu grand frère suñu parrain suñu xarit suñu lépp muy alaaji Issa soow di ko jaajëfal bu baax a baax a baax parce que lii ñu organiser tey xëy na dayo bi mu am tey mos ko woon a am ku xamul dafay yaakaar ne tey lañ ko mos a mos na fi am mu amaat fi tey la mooy troisième fois bi parce que waa Black System ay ndaw lañ yoo xamante ne ni ay morom lañ ñoom ñëpp ay benn génération la ñu xaritoo bokk ndey bokk baay ñuy kaf di foo di ree tuur kese booleetu leen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñenn si ñoom dañoo am soxna ñenn ñu amuñu soxna su ko defee ñu toog di foo seen biir di ruubante seen biir ba ñu ne nañ dañ organiser benn match muy contour marié célibataire premier match bi marié yi ñoo dooroon célibataire yi revanche bi célibataire yi daal di fayu moo tax tey mu doonoon final bi final bi tamit ah célibataire yi nee nañ dañuy jaar si ko marié yi moo tax jaar nañ suñ ko bu baax a baax mais dañ koy muñu rek garaawul ñoom buñ paree dañuy tëdd si lal bi di borongu rek duñ def leneen loolu rek waaye ñun moom buñ pare dañuy tàngalal ndox dugal suñ tànki si biir damp ñu gannaaw buñ sante yàlla nag bu baax na ah <laughs> waaw gannaaw buñ sante yàlla lii ñu def soo leen gisee ñu def ko dafa am lu tax parce que kër Abdou Ndoye rëyul rëy na rëyul bi boo ko déggee ñun ñëpp benn lañ lu dal kenn dal saabu veut man bu ma amoon lu ma dal tey ñëpp lay dal si kër Abdou Ndoye ñëpp bu doon naqar la ñëpp koy bokk bu doon mbégte la ñëpp koy bokk kon rëyul lu tax ma ne rëy na dëkk bi am na dayo boo xamante ne nii boo fi dëkkee doo ko xam waaye boo fi dëkkul wala nga génnoon si ngay xam ne dëkk bu màgg a a ngi ba tax na dañoo bëgg dind yenn stress yi bëgg lancé waale si biir kër Abdou Ndoye ñun ñëpp amul pël amul olof amul lébu amul séeréer ñun ñëpp keneen neɗɗo gooto ñun ñëpp benn lañ ñun loolu la tax ñu organiser lii ndax suñu tuur am nañ ay olof am nañ ay pël fii ñu doon joué am na ay olof am na ay pël dafa am lu ñuy lancé waale pour ñu ñi xamaale ko ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kër Abdou Ndoye foo yeewoo biir kër Abdou Ndoye kon ñun ñëpp ñu ngi si biir kër Abdou Ndoye kon waa kër Abdou Ndoye nañ bokk ndey bokk baay encore suñu rakk yi ak suñu mag yi bu fekkee dañoo amoon lu ñu jàppalante woon seen biir si wàllu ennemi enante ñu ngi leen koy ñaan lépp daal di deñ suñu rakk yi nañu xool si ñun ñun noo stress la ñuy doxee dañuy kaf di foo di ree loolu daal message la boo xamante ne nañ ko lancé waale su ko defee alaaji Issa alaaji alaaji Cheikh wax na ko sànq gis nga ñun ay ndaw lañ de waaye ñu ngi xool mag ñi yan mag lañ parce que mag bu ne am na lu muy wane si biir dëkkam boo amee noo mel yenn jeunes yi dañuy xool si yow ñu mel noonu boo amee neneen noo mel yeneen ndaw yi am nu ñu xool si yow daal di doxee noonu ñun nag ay ndaw yi am fulla lañ ñu gëm suñu bopp lañ alaaj Issa na ñu gis ko mu nekk ndaw bu am fulla bu gëm boppam di dox si social mu baax lool yaatu lool du caa du caagi ne damay wax pour politique wala pour leneen ñun ñun ñun ñun ñëpp lañ fi nekkal mais dañoo gis ci moom mu def acte yi rafet mooy xam suukar koor la moo xam yeneen yoo xamante ne bëggul ku ko wax ñun tamit ñun utuñu si dara dañ ko bëgg a fésal ñu xamal waa kër Abdou am na ndaw bu fi ne bu am jom lool di def loo xamante ne ñenn ñi yëguñu ko waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo fi ne ñu wax ko ñëpp xam ko looloo tax ñu tuddee ko Alaaji Issa Sow ndaw la nañu ko jàppale ñu jàppalante suñu biir jàppale alaaj Issa mooy jàppale doom kër ab ndooy jàppale doom kër ab ndooy mooy jàppale suñu bopp loolu laa amul lu may sànni maa ngi jéggale ñëpp wax ji nag gudd na waaye nag célibataire yi ngeen muñ ndax seen mbégte fii la yem waaye ñun suñu mbégte appareil la <laughs> waaw salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi rafetlu waaw ñu jéggalu mag yey ñu leen door ba pare ngeen di wax da ngeen di noppi ñun ñoo waroon wax ngeen di wax ñun ñoo gañe <laughs> waaw kon su ko defee ñu ngi sante bu baax a baax ñi fi tok parce que da am lu nasaran di wax utile et agréable mom lañu bolé tay peut-être slogan bi dina xawa jaaxal ñu bëri ñu né organiser nañu ben affaire bo xamantene ben, groupe ben tour moko organiser jël marié yi ci nek ak célibataire bi ak célibataire yi ñu jël kenn ci dëkk bi ñu dara ko ñenn ñi mën nañ koo jàppee lu suufe waaye du suufe yëg yëg du tuuti yëg yëg du tuuti ku ne ñun ñi nga xamante ne ñu ngi ci groupe bi ku ne fi mu génn amoon na keneen kum ko mënoon a tuddee waaye bi xel yi demee ci El Hadj Issa loolu ab njukkeel la ça dañuy yëgal monde entier wala yëgal Kayar am na kuy ñëw fii lay commencé ca suba coupe zonale wala coupe départementale jomb ko ñu tuddee ko ko xam nga tey initiative Mon mën wax ni ñun ñoo commencé mais pourquoi pas beneen année parce que boo demee fu ne ci bi même ci Dakar da ngay dégg ñu naan match sa kii chanteur danseur chanteur rappeur slogan boobu lañ bëgg répéter fii même ñi nga xamante ne ay vétérans lañu ñoom El suñu président sama président la ba léegi Daouda sama président ba léegi seen ñaari tuur yi suba mën nañ leen séntu ñu daje ñun seen biir en tant que ay mag ñuy football seen biir. parce que bi ñuy tijji stade Abdoulaye Wade gis nañ ñi fa doon football ay magum jëm lañ am nañ 60 ans 50 ans c'est-à-dire slogan boobu boo xamante ne day boole ñi nga xamante ne ñooy football. parce que ku ñëw fii nga gis environnement bi dox seen biir nga xam ne ñii jàmm mu ngi seen biir année bi tey lay jeex muy le 31 décembre c'est-à-dire boobu ñu def ko ci. day day day tax ñeneen ñi nga xamante ne bu ñu xalaatoon ne sax gàcce la ñu xalaat ni déedéet lii du gàcc lii di mbégte la daje foo sport nga defar sa yaram defar sa esprit ba pare ñun ñëpp ñu toog ñu dara ko kenn ku dëkk ci dëkk bi ñu yëgal àdduna diw bii yëg nañu yëg na waa dëkk bi ñu nit dañ koy delloo yëg-yëg boobu te li ñuy am ku am mbaam di la yóbbaale bu amee avion yaakaar naa du la bàyyi te ñun ñii di wax ñun ñii di wax rakkam lañu Euh, léppam lañu gaaka gaaka bokkuñu mouvance politique ñun patriote lañu sonkiste lañu moom pédéiste la libéral la mais ñun ñëpp ñooy toogandoo benn table ñoo bokkandoo association yi dafa am benn idéologie boo xamante ne il fallait que nit ñi accepter ko gis nga li ñuy wax ci olof nangu sa mbaaxu waay du wàññi sa mbaax dara sama bopp dina ma gënal nag ba tax na bu may campagne ma campagne sama bopp waaye dinaa nangu ni diw mii dëkk bi da koo war a bàyyi xel lépp loo xamante ne mu ngi koy def jeunesse bi jàppale ci parce que nga jël sa dërëm xaaroo ci kenn di ci jàppale nit ñi nit ñit bu ñu amee lenn lum tuuti tuuti ñu war la cee fàttaliku ça veut fàttaliku nit nag balaa muy dëdd àdduna moo gën ba leneen xew ñu naan ndeysaan ku baax la woon dañ koy wax ku baax la parce que waaw góor taxul góor doonaat beneen góor waaye dina fexe ba góor boobu yokk lim doon def mu goreel ko ça veut dire mu doon góor dëgg ñu ngi jéggalu nag wax ci bëri na

depuis ci ñoom Daouda Ba wax naa ko ci léegi ba tuur yi nekk ci suufa suufa suufa suuf yoo xamante ne dañ ci bokk waaw kon su ko defee ñu ngi sant bu baax ñëpp ñëpp ñëpp di jéggalu kaddu yi bëri na waaye lépp ñu xamal leen bëgg nañ ci Aladji Issa parce que mënoon nañ koo tuddee mu jàppee ko ay affaire u kaf affaire foo mu bañ a ñëw waaye nit ki ñu yëg nga yëg ñu yëg la nga delloo nit ñi yëg-yëg loolu rek mooy fay yëg ngeen jéggal ñu bu baax ci kaddu yu bëri yi waaye ñuy ñaan yàlla nag ñaan yàlla nag lu lu ñu gañe gañe gañe gañe yàlla nañu football beneen boor bi beneen at <laughs> beneen boor bi yàlla nañu fa football waaye sali ba nag du wéy <laughs> jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki kër Abdou Ndoye mbokki commune Kayar mbokki quartier Bercy mbokki groupe Balak système di wax ne Balak système système bi wuyu na borom di wax ne. xaw ma delloo naa leen njukkal waaye yéen delloo ngeen ma sag bu rëy ci Keur Abdou Ndoye di nuyu ñëpp di nuyu suma kilifa suma pap suma nijaay sama ker sama naaj di Cheikh Sow nu gën ko xam Cheikh Sow tuddee ko Alaaji Cheikh Niang di nuyu suñu njiit président Mass président Tour muy Daouda Ba di nuyu saalif Aliou May di nuyu sama collaborateur muy samay xarit ilo ak ku mel ni Alaaji Fall Ndoye di nuyu Mamadou nya waye di nuyu ñuma bokal tour ñepp ñëpp limé ma jumba motal di nuyu mon amour ma belle sama séri sama xol sama aw bu baax bi nga xamanteni du am ñaarel du am ñetteel sama aw bi nga xamanteni sestima sësti ma rek te du ma rëkk lu ma am moo gënal gënal milliard ah. na leer waaye eh, maa ngi delluwaat rek ci système bi ñu boole. bi ngeen tolloo fii ñu ñu tolloo ak yéen suñuy moroom ni ngeen ko moderniser mosuñu ko defee noonu. kon su ngeen ci tolloo di seen ay ngeen doxalee ko nii amaana ñoo xamante ne ñu ngi nekkoon ci stress ngeen dajale dix personnes ñuy kaf diree loolu symbole bu rëy la. système bu rëy la kon balak système bi système bi wuy na borom. di nuy Alaaji Bàcc Ba maa ngi koy fàtte. ak moo sama secrétaire Salaka sama doomu ndey Mouhamed Ka nga xamante ne lu may xewle rek dinaa leen laaj bés bi su fexee su fexee mu jàll ba ma ab abstement am bokk na si seeni kàddu ak seen conseil nit du weddi boppam nit du soxor olof Ndiaye dafay faral di wax ne suul kere du du ko tere feeñ penc mi rag penc mi jafee waxee nga waxee dërëm ñu tawal ko ba mu toll ne cent franc fekk sa wax eggu fa waaye li ma leen di wax ne yéen ñii nga xam ne yéen ay groupe Balax système maa ngi leen di safoo maa ngi leen di ndamoo maa ngi leen di tiitaroo di leen wax ne bés ni ko tey maa ngi yéen si maa yéen a ngi sama biir maa ngi seen biir mosu leen mosu leen maa génn mosuma leen génn lu ngeen xewle na ngeen ma ci woo lu ngeen xew le su ngeen ma ci woowu dama leen di mere kon nangeen xam ne bés ni ko tey maa ngi yéen a far ndax dëkk bi ñoo ko bokk amul pël amul olof amul naar amul séeréer kër Abdou Ndoye laa bokk tëj na ñëpp te kenn génnul ma keram noy bo leen jëlon ñep dugal leen ci cin di leen baxal kën du tepp genn ndab ay gor lañ kon bu ngeen jël ay bës bës bu toll ni Kër Abdou mu bari ay xalé gor yu bari bari yo xamantene ñu ñu bari bari yo xamantene leen fayda daraja awma luñu amul yoruma luñu yorul ngeen tudd ngeen tudde mako wallahi azim xamna ne sag la ak weg la waye nak limu leen di xamal fi ngeen tek seen fofu la bala system bi ngank leen ko ba aljana bu leen kenn xajale nangeen bokk ndey bokk baay jàpp leen bés ni ki tey teere fu ngeen ma woo dinaa leen wuy su lu ngeen ma wax dinaa ci bokk bés ni ki tey Balak système bi maay premier membre si biir Balak système bi kooku na ko xam beneen bi na ngeen xam ne dëkk bi defaroowul ci kenn ju dul ndaw ñi kenn ku ne na nga nangul sa sa morom la mu mënee ci yow ndax kenn ku ne am na loo loo mënee loo xam ne sa morom mënee wu ko ci yow te nañu nangu li yàlla di dogal li yàlla dogal mooy kenn ku ne na nga xam ne suukar nga bu war nga amul kenn du la naan kon na ngeen xam ne ñun ñoo bokk ndey bokk baay innovation Kër Abdou Ndoye pour Kër Abdou dem ci kanam mu ngi ci loxoy ndaw ñi te ñun ñii ñoo bokk benn catégorie ñoo bokk benn lu ñuy xeex pour développement Kër Abdou Ndoye pour Kër Abdou Ndoye avancer ci kanam kon li ñu leen di wax rek mooy sant nañ leen gërëm leen fugal fubal ngeen ko ci fair-play ci discipline ci honnête ci sérieux kon yal na leen yàlla fay en tout cas li ma leen di wax rek mooy góorgóorlu leen fi ngeen teg seen tànk foofu la mënoon nga ko jox keneen te itti bu boobaa dañuy fekk bej bi rafetal ko waaye man ngeen ko jox man mi ngeen ko jox seen bopp ngeen ko jox ñi ma fi nekkal yéen ngeen ko jox kon ñu ngi leen di safoo di leen damoo di wax bonne coordination lu euh, ci olof dafay faral di wax ne lu def ci nag bi xëjul ci cin bi waaxu gëlëm xëjal ci pantara ma ne li jën a ak ci penc mooy fekk mag màgget bu am téeméeri at nga bëgg koo suuxat mënta dem fekk mboob bu ñu teg ci àll bi nga bëgg koo jimbat ba mu sax ba jébbi mënta dem dama leen di wax li gën a rafet jafe ci penc mooy fàq faj mag bu am téeméer at mënut nekk dama leen di wax seen avenir mu ngi seen kanam bu leen ko café bu leen ko reetaane en tout cas li ma leen di wax maa ngi leen di saluer équipe perta bi jaajëf beneen bi dina neex équipe bi gagné fi nga teg sa tànk bon jaajëf maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen siyaar jaa ngeen jëf kontaan nañ ci yéen yàlla na yàlla fay leen